indi leeral mën ngaa woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. anta bi ni'mati rabbika bi majnuun. ñëpp bàyyi waxtu bi yëpp dikk ànd ak rob ñu sang ko di ko teewe ñu di ko defar ba nga ñëw ci barab bi ànd ak moom denc ko nga taxawe ko jëmal ko. demal ma man mii mu jur ma doon ko toppandoo ba egsi fii ma egsi tey teraanga jooju dafa nga ne Baye Moussa Gueye sax nga ko def walla man mii adduna bépp féetale ak yow ñii sant Mbàkke ma dëkk ak ñoom sax dañ may nuyu naan ma dama ba bëgg nga xamale maag Mbàkke yu fay ca Tuubaa gée ma dëkk waaye man mii ñu yow ma féete yow nga féete man man nga defal loolu bisu màggal gi ni mu ni mu taree ak ñàkk foo jaar nga bàyyi lépp ñëw ci denc bi ba ñu denc bàyyi musaa Gueye ba noppi nga door a delloo ba noppi wëlbati ko taxawwaat man ni ma addi ji defal ma ko ci dëj bi def ko ci dëj bi ba nga xam dëj bi dara manqué wu ci te dëj ba man maay jël engagement yi rek ndax man ko ñemee engagement la yoru ma dara nag waaye sëñ tubaa rek laa yaakaar sëñ Tuubaa dong laa gëm te lu ma song balaa jant bee soog mën na ko billaahi wal kitaab barkal Alxuraan nga jàppale ma ci épaulé ma mantoore ma ba dara manqué wul ci dëj boobu lépp jàll noo ngi lay sant di la gërëm sëñ Touba yow rek lañ ci am barke alxuraan maa ko wax man je m'engage personnellement et solennellement barke Seexul Xadim billaahi wal kitaab ndax bi nga ñuy jàpp di ànd ak ñun di ñu jënd ak ay oto zéro kilomètre di ñu taxaw di añandoog ñun di reyandoog ñun xam nga nit may ko xaalis baax na lool waaye respecté ko considéré ko di añandoog moom di reerandoog moom di ndékkeendoog moom looloo ko gën jox ko war ma jox ko tedd nga te loolu nga ñu defal noo ngi lay ñaanal yàlla guddal sa fan te wëral sa cër te bàyyi la fi sëñ Modou Mamoun jang tof toll ci faatu ba ma la ne sëñ Modou Mamoun faatu na danga bàyyi li nga doon def lépp taxawuma bàyyi sa yitte yëpp dawal sa oto bi ba tëngéej ruqi tëngéej yi dama ne Moustapha oto bi mënut a dugg fii ndax quartier bi mu ma mën naa dugg nga ñëw jaale sëñ Modou Mamoun taxaw te loolu mën nga ko defal yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla wér sa cër te jànkati xasaay yépp nga ko defal fay noo ngi lay ñaanal yàlla mi borom bindee fi na la yàlla rof ndimbalam barke sëñ Touba barke xasaay di Omar Diagne nag boo ko baalee man baaluma ko billaahi wallaahi wa taalaahi yal na ko sama àq daal yal na ko àq murid dal yal na ko sama àq dal billaahi man baaluma ko Omar Diagne baalu ko àdduna baalu ma ko alaaxira te man néexuma ay bokkam néexuñu ma àdduna ak alaaxira maa ko wax te procureur procureur de la République moom su autosaisir wul ci li Omar Diagne wax nit ñi dañuy blanchir xaalis ah moom war na askan wi de moom ñi ñi blanchir xaalis bi na dem seet leen jàpp leen tëj leen barki Seexul Xadiim ndax tekk ji bari na te ñàkk déggante gi it bari na barke Seexul Xadim barke maam borom Tuubaa gannaaw nee nga dañuy balansir procureur moom war naa jóg seet ñi balansir mu jàpp leen su ko deful war na askan na xeet wi ñu may tuuti dégloo ñu may tuuti dégloo Allah waaw sëñ Akassa jërëjëf li nga wax day ñoog yow ñoo ci bokk tolluwaay ak sëñ Muntaxa Male ñoo ci bokk toll taxawaay dafa tolloo nag ni ñun sëriñ Tuubaa dañoo dimmili ba pare yar ñu sëñ Tuubaa doole jariñu lu dul buuxante te àddina bi doole suñu borom ji sëñ Tuubaa la ko jox moom la ko jox ci zaahir moom la ko jox ci baatin dëgg la sëñ Tuubaa du moroomul mag mastama gone sëñ Akasa daa am loo xam ni lu ñu ko bëgg bëgg bëgg bëgg lu ko sëriñ bi bëgg bëgg bëgg bëgg du am ndax yàlla li mu mën a muñ ci boppam munu koo muñ ci sëriñ Touba boo taxawoon fii suba ba ngoon di jot di wax yàlla amut bés bu ne nga dégg ñu ni Dieu n'existe pas ay saay-saay yoo xam ni Dieu yàllaa ngi leen di teral jox leen ngelawam lii ñu koy noyyi di leen dundal ci seeni kol di feesal seeni jiba ba mu fees dell ñu wéri dara mettiwu leen ñu taxaw weddi yàlla weddi yonent bi te teewut yàlla di leen dimmili faalewu leen waaye loolu mu mën a muñ ci boppam munu koo muñ ci Sëriñ Tuuba xam nga lu taxa fi sëñ Touba yegg yàlla la kenn musta yegg yàlla foofu sëriñ Touba nee na fi ma yegg yàlla ku la ni yegg na fa yàlla ne ko waxul dëgg ak ku mënti doon yàlla moomu nag digganteem ak sëriñ bi dara xaju fi lii nga ni kooku nga tudd baaloo ko yow war ngaa xam ne ma nit baaluma ko ma ñëw waaye tooñu la tooñu ma tooñul sëriñ bi sëriñ bi ni mu mel moo ko naqari diine taxul bu fekkee ni danga nga yow diine nga nitu diine nga dangay wax ci diine bay xam loo xam ni dangay wax ni lii bidaa la wala du bidaa dangay wax ni lii diine la wala du diine nga xam ni diine moo la ñor ba ngay xalaat ni barab boo xam ni dañ fay jaamoo yàlla am na lu fa nekk loo xam ni ay signes yu baaxul la bu fekkee ni diine la ñor da dem ba ni ñëw ni ma sëriñ bi mun a nga ni ma xoolal lii baaxut nañ ko dindi dëgg la ku diine ñor wallaahi <laughs> ku diine ñor waaw nañ leen julli ji ba dellu si